allo allo. oui. allo. waaw salaamaaleykum. maaleykum salaam sëñ bi ñu ngi lay nuyu di la ziar. waaw delloo ziar. rafetlu seen jotaay boobu. waaw merci beaucoup tur bi naka la ak fan ngay wootee. waaw Mbour laay wootee. ani waa Mbour mbaa ñu ngi si jàmm bu baax a baax. ñu ngi sant ñu si jàmm bu baax a baax. ok sa sa sa gis-gis wala sa jàngat ci li xew démb fële nga xamante ne moom moo di ca place de la nation ak procès Ousmane Sonko bi dox ci diggam ak Adji Raby Sarr le 16 bi. waaw li may li may wax tuuti bëriwul. Mhm. bu ngeen ma ko mayee. yow rek la ñuy teewlu. ngeen jàpp bu baax li ma leen wax. Mhm. te bu ngeen ko mayee teeti ba ngeen teew. incha allah rabbi. ndax li may wax soxal na waa Sénégal. Mhm. surtout Macky Sall. yow rek la ñuy muy projet Adji Sarr bi mhm. da ngeen jàpp bu baax la ma wax da ko mën a arrêté mu ngi naan trop. yow rek la ñuy yaa ngi direct. maanaam projet Adji Sarr bi muy jëm moom moom Macky Sall. Mhm. soxal na Sénégal soxal na ko moom surtout moom. Mhm. mooy bis bu ci doxee jëm wala mu ne day jéem a jàpp Ousmane Sonko. moom du ci moom. ko bàyyee mooy gën ci moom. Mm. bu ko bañee def mooy gën ci moom. Mm. te bu ko defee. Mm-hmm. ay wolof nag laa moom bu ko bu ko bàyyee day mel na moom dafa ragal wala daa tàppet wala leen fekk moom moo gën ci moom bu ko bàyyee. Mm-hmm. bu ko bañee yëkkati bañ jëm gën ci moom par rapport ak bu ko defee bu ko defee nag daa gën ci moom. Mm-hmm. te li wax ma ne gënu ci moom ay kilifa yu mag. kilifa yoo xam ne ni am nañ baatin. ci wax na yow moom ba mu ko njëkkee yëkkati. Mhm. ba ci jafe-jafe amee ba réew mi naroon a mhm. dañ na ko lii teg ko ci suuf. Mhm. wax jooju rek du dañ mukk. du dañ mukk wax jooju bés bu ko yëkkatiwaatee. maanaam lam koy jural. dana ko rëcc lool. te yaakaar naa sax rëccu gi. dana yëm Sénégal yu doy waar doy waar ndax rëcc boo xam ne nii. am loo xam kenn du wax ci téléphone. d' ah accord. wallaahi dama lay wax nii. te nga ñu cee musal te li ma la wax dama bëgg ngeen enregistré ko ndax jamono dana ko indiwaat. ma ne teg ñu cee musal pour ñu enregistrement bi. gën a gën a kii waaw dama dama waaw xam nga li tax ni ma koy junjee rek mooy. waaw maanaam jamono. jamono ju ne ak lim méngool. Mhm. man waxu waxuma waxu baatin waxuma mhm. bëgg nit ñi jàpp ko bu baax a baax. Mhm. te xam ne. lii bis bu ci lam ca bëgg mm. doo ko ci am mukk mm. te moom liñ naan ay rëccu rëccu gi sax moom nekkul loo xam ne lu muy fekke lay doon mm-hmm. te jàppal bu baax li ma la wax mm-hmm. te bis bu doxee jëm ci mm. man maa la ko wax te jàppal bu baax li ma la wax man ñu woote mbuur mm-hmm. bu doxee jëm ci dara nekk loo xam ne nii wallaay naa si lu muy rëccu lay doon ci addunaam lu muy rëccu lool ci addunaam lay doon te li ma ci gën a métti nag mooy dana ci yàqal Sénégal lu bare bare fii fukki at. Mm. fukki at Sénégal dana ko nekk ci jafe-jafe bu ci doxee jëm. déet waay. kii maanaam la moo tax ma ne arrêté bu baax li la wax. Mm. bis bu doxee jëm ci fukki at Sénégal dana ko souffrir. déet waay te ñoo bañ a lu la wax waxoon waxoontuma nag jamono arrêté na lu may wax bu baax a baax. yow kay li ngay wax ay archive la li ma la ciy dooleel mooy. Mm-hmm. bis bu doxee jëm ci. Mm-hmm. man incha allah rabbi maa la ko wax. Mm-hmm. Macky Sall dana fi jógee lu mat. juróom benn fukki ak juróom. waaw man danaa toogaat ci plateau wax ko. barke Seexul Xadiim. Ah. li ma lay wax nii yàlla laa koy gis yàlla. daa hmm. ngi tuub ci waat ci ma war lekk yàlla laay waatal. Hmm. maanaam 63 ans. Hmm. bés bu doxee jëm ci man dinaa toogaat 63 ans. toogaat xaw ma fan lay doon ci jamono waaye dinaa ko waxaat. te jamono ju ma koy wax jàppal bu baax li ma la wax. piisu téléphone du amati. nit ñi danañ jokkoo di wooteeg wuyoog yëpp waaye piis yi ñuy wax ay ay excursion ay orange ak tigo du amati ci àdduna. Mm-hmm. li may wax nag jamono. mu mm-hmm. ngi suñ kanam. bis mm-hmm. bu doxee jëm ci ak ku ko wax. man li ma wax loolu jàpp ko bu baax a baax ku ko ne doon doxal jëmal ci Ousmane Sonko ci procès bii. du ci am ndam mukk te danañu dugal ci Sénégal fukki at yoo xam ne nii. danañ dund lu métti yoo xam ne nii bañ juddoo ba léegi si gàtt mosuñu ko mosuñu ko dëgg. kon nag delloo ci xelam te gëwuma ko nag delloo ci xel gi moom gëwuma ko ndax fi mu jëm nii gëm naa ne dana fa àgg waaw gëm naa ne dana fa àgg waaw te bu fa àggee xaw ma ñeneen ñu koy nettali waaye moom du ci bokk ci àdduna ah bon lii maa la ko wax man jàppal bu baax soo ko waxoon baax waxu ma la waxi maatin nag xam nga def am na xam ne ñaan sëriñ baax yow li ngay def nii ay révélation la de parce que da nga ne da nga li loo tax ma ne la arrêté ko bu baax a baax a baax a baax li ma lay wax. sëñ bi laajal ma ko yow sama question. waaw sëñ bi. waaw xam nga danga ne di nga toogaat 63 ans li nga waxoon nga toogaat xam daal di koy wax. 60 dinaa toogaat 63 ans waxaat. Euh, mu nekk ay révélation da nga dundaat yeneen 63 ans dooleeku ci say at daal di toog wax li nga waxaatoon. liggéey ko ci yàlla. Hmm. élection deux mille vingt cinq yi deux mille vingt quatre yi naka nga ko nar a gisee. loolu loolu man loolu moom sax loolu loolu loolu li ma li ma xam laay wax xam nga nit boo da nga wax nga xam li nga li nga li nga xam ne leer na li ngay wax nii sa diggante yàlla tax nga koy wax. Hmm. waxuma pour ay baatin waxuma pour ay ay gis naa wax nag li may wax dama bëgg ngeen jàpp ko te ëllëg a tax te nee naa la bis bu ma toogaatee bis bu ma toogaatee di ko wax. Hmm. téléphone du amati ci àdduna. Hmm. nit ñi danañ woote danañ wuy danañ jox woote doo déggati benn piis. te doo doo déggati piis. li ma la wax tamit suñ kanam. ah. te dimbali la da nga ko fekk incha yaa rabbi. jërëjëf. ok ñu ngi koy jaajëfal baax bu baax a baax moom mbokk moom mu wootee. ca diwaanu bu saltige saltige keroog saltige woo ma aussi. ah eh, diwaanu ah, Djilor Djilor Saloum je pense moom def na révélation daal. waaw moom def na ay révélation ne kaddu yi mu wax nañ ko bind en enregistré ko 63 ans ci kanam moom dina toog daal di. maa bëggoon xam moom ñaata la am inspi hmm? ñaata révélation yu doy waar la wax te nee na euh, ki maanaam sénégalais euh, li nga xamante ne Macky Sall li mu nar bu fekkee ne teggiwul tànkam ñun dinañ dund 10 ans ci ay jafe-jafe ah. doy hmm. waar de man. Hmm? yàlla nañ ci oh. yàlla buñ ca yegg kon. <laughs> Oh, oh. <laughs> xale yi doon daal waxam la daal wax na waxam la. Hmm. en tout cas daal mu ngi noonu daal. mais mu mel ne ki nga xamante ne moom moo di Ousmane Sonko saisir ay avocat li nga xamante ne moom moo di ko suprême euh, ci diggam ak Mame Mbaye Niang ate bi nga xamante ne atte woon nañ ko tëj ko 6 mois euh, avec sursis amaan ko. li nga xamante ne moom moo di 200 euh, millions mu mel ne 6 euh, jours lañ ko mayoon mais information yi ñu am ñi di ay avocat dem nañ saisir cour suprême euh, pour ñu attewaat bile dossier pour que moom mu daal di jot li nga xamante ne moom moo di ay droits civils am waaw kon je pense que acte de jugement bi dafa génn parce que bala ñuy euh, may li nga xam ne mooy juróom benn fan yi dañuy génne acte de li nga xam ne mooy jugement li wane que ne Ousmane Sonko àtte nañu ko ba daan ko donc ñoom ci loolu la ñuy basé pour yóbbu ko fi nga xam ne moo di cour suprême mhm. je euh, mhm. parce que suñu ay ñoo tuddee noonu bu fekkee dem nga première instance ñu daan la d' accord da ngay dem mhm. donc c' très légitime peut être dañ ci wax rek mooy euh, bu ñu ko def comme ni ñu defee woon le cas de Khalifa Babacar mm-hmm. maanaam gis nañu déjà procès bi lépp boo koy xool euh, ci atte beeg ni ñu defee li nga xam ne ci atte bu njëkk beeg appel bi mm-hmm. yëpp ça ça n'a fait que mm-hmm. euh, ne a doy ngi fi sur l'affaire Téliko ak ki moo di Madiambal Diagne qui a fait apparemment vingt quatre mois l'affaire Ndiaga Diouf ak Barthélémy Dias qui a fait également deux ans trois ans déjà donc muy wane que déjà dossier bi dañ ko patam patamee donc patam patamee mi nag lan mooy solo Coros peut-être pour éliminer Ousmane Sonko à ce que du mën a doon li nga xam ne moo di candidature et rappelez-vous aussi que tey bi ñu demee fi nga xam ne moo di cour suprême foofu ñoom du ñu attewaat comme ni ñu atte en première instance ak li nga xam ne moo di cour d'appel foofu li ñu xool mooy juridiction bi est-ce que bafoué li nga xam ne moo di est-ce que ni ñu ko attee teg nañ respecté nañ ñu euh, li nga xam ne moo di injure biñ ci biñ diffamé Ousmane Sonko mm-hmm. en même temps il li nga xam ne rek moo di injurier ki nga xam ne mm-hmm. moo di Ousmane Sonko mm-hmm. parce que toog na fi ne Ousmane Sonko violeur la yor nga xam ne moo di ay vidéo donc yàq ko lu mel ni xamee donc pour man jàpp naa ne bu fekkee dañoo tënk lu jëm ci wàllum injure jëmale ko ci Ousmane Sonko idem également Mame Mbaye que man awma même euh, thème le même euh, euh, li nga xam ne moo di peine sera peut-être moom la ñuy euh, firndewaat et en ce moment Sonko ne ne pourra pas être candidat bu nekkul candidat nag qu'est-ce qui s'est passé mm-hmm. donc je pense que loolu mooy li nga xam ne moo ci am et puis l'autre sujet yi nga xam ne jot nañ ci wax mooy l'affaire Adji Sarr ak Ousmane Sonko. Mhm. je pense que démb maître Ciré Clédor jot na am sax benn sortie boo xam ne moom dafa jàpp ne lii mhm. lépp acharnement la jëmale ci ki nga xam ne moo di client mhm. waaye également li ko tax a jóg bokk na ci inéligibilité bu njiite Pastef di Ousmane Sonko maanaam ñu def de kéemtalaay kattan ba Ousmane Sonko moom ñu écarté ko ci élection présidentielle en 2024 et pour ñu mën ko def également peut moo tax ñu téye dossier benn bu ne ñu génnee ko je pense xam ne teg na ko maaleykum salaam. sëñ bi noo def. sant rek alhamdulilah. ñu ngi lay ziar tur bi naka la ak fan ngay woote ah, a lebal nañ la ko.